ñëw ci suñu juróom-benn lu tomb ci burdatul madix ci nab na bi suñu kem kàttan di ko barkeeloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci weeram la ñu nekk ci ziar képp koo xam ne soppe rek ci bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy yoon wu jub bi nga xam ne moom la yàlla teg ne nañu rey ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhamadul Bushayri wax ne yaa xayra man yemmama al aafuuna saaxatahu saayan wa ay neqi rusumi mu yow yonent bi sallallahu nga xam ne yaay ngëm ji jubluwaay mbokk yu tukki lu mu rëy rëy bu jubloo màkk rek tukki ba wàcc na tukki dootu ko gën a kowe euh, barke bu nekk ci yonent bi àgg na ci sax xibla bi ko yàlla orienté moom la orienté monde bi yëpp univers bi yëpp ñu ngi dëgmal màkk mooy ëtt boo xam ne fi la jullit war a yaakaare boppam mu ne ko yow mi nga xam ne yaa gën ci jubluwaay yi sa ëtt bee gën a yaatu ci mbooleem ëtt yi ñi ngi war ci kaw giléem yi di calde ak ji war ci naar yu góor yi di dañal di ñëw wa man huwa al ayatul kubra li mu'tabirin ana kan mooy borom kéemtaan yu rëy yi ci kuy waaru wa man huwa ni'matul uzma li mun li muxtanimi ana kan mooy boroom xéewal yu màgg yi xéewal yu màgg yi ci ko xiif xéewal mbaa nga namm xéewal bëgg caa jot kenn mënu ko jaare fenn fu dul ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga ko mën a jaar ba am ko noo tax Muhamadul Bushayri radiyallahu anhu wax ne yonent bi daal sarayta min xaramin dox nga jóge ci place buy tedd bu yàlla xormaal lan guddi ilaa xaramin jëm ci place bu tedd bu yàlla xormaal mooy dafa jóge màkkatal mukarram ci guddi gi rañaan jaar baytul muqaddas juddi julle jullee fa yonent yi sallallahu alayhi wa ak ñoom def discours bi muy def kama sarayta kama saral badru fi daajin min adulami rañaanam nga dafa mel ni ni weer di doxe guddi noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxe ci génn guddi dem ci péyu boromam ba wuy ji boromam ziyaare ko déeyante fa ak moom la mu fay déeyante ak moom wàññeekuwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci isra wal miraaj jàppee na zamzam jibril indil ko alburaax muy cëppantu yonent bi ne ko jibril ne ko teengaa dal te gën ci mbindeef yi te tax yàlla bind la moo war a war ci sa kaw tey ca la jibril téye ci laxaab gi yonent bi yéeg ci kaw alburax jibril dañal ànd ak moom ñu egg baytul muqaddas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite yonent yépp mi ngi yeewoon alburax alburax ci benn collier bu fa nekkoon ci péye ya fa la ko yeew bi mu jullee ak yonent yi ba sëlmal def discours am ci la bëtt asamaani juróom-ñaar ànd ak jibril dem wuy ji boromam moo tax mu ne ko wa bit tatarqa illa an nilta manzilatan min xaaba xawsayni lam tudrak mu tarumi yow daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanaan ngaa rañaan ba àgg ci palaas boo xam ne fa ñuy wax xaaba xaw ni jege sa borom ba mel ni diggante xàcc ak ak xocc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax sax ne dem na ba leeru suñu borom subhaanahu wa taala lekk leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te place boobu kenn musu ko am wa qaddamat ka jamiu l anbiyaai biha wa rusuli taqdima maqdumin ala qadami wa qaddamat ka jamiu l anbiyaai yonent yëpp dañ la jiital yëpp topp ci sa ginnaaw mboolem yonent yi ñiñ solo woon te yónni wuñ leen ak ñiñ yónni soloo leen ñoom ñépp dañu daje jiital ko jiital gi ñu ko jiital mi ngi mel ni directeuru société bu ñëw ci société bi di seetsi li architecte bi di liggéey wala entrepreneur bi wala li ouvrier yi di liggéey nga gis ñu solal ko casque bi ànd ak moom ci place bi di ko présenter liñ jot a def noonu la ko yonent yi jiitalee mu doon seen patron wa anta taxriqu saba tibaaqi bihim fii mawkibin kunta fihi saahibal alami yow yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam xotti nga juróom-ñaari asamaan yi xotti paravent yi ànd ak yonent yi yaa ngi mel ni ci seen biir ab drapeau bu ñu gàddu ni muy sutee ni muy sutee ci biir ful bi foo tollu di seen drapeau bi muy flotté nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu nga mel ci biir yonent yi keroog xata ida tadaa sawan li mustabiqin min addunuwi wala marqan li mustabiqi li mustanimi yow yonent bi daal sallallahu alayhi wa dem nga ba àgg ci place boo xam ne njëkkante taxul nit àgg fa rawante taxul nit àgg fa ci jege goo jege sa borom musu koo rañaane kenn amul kenn nit koo xam ne yàlla defal na ko jege jagle googu xafatt kulla maqaamin bil idaafati is di bi rafi misla al mufradil alami yow sallallahu alayhi wa sallam sippi nga bépp maqaama keroog bi nga rañaane ba sës sa borom rëkk keroog nga sippi mboolem bépp maqaama yàlla berndeele yonent bi teraanga joo xam ne mosu ko jox benn yonent bu mu fi yónni dafa mel ni ki sax lim baax li woon lépp def ko denc doon xaar yonent bi ñëw mu invité ko ngan yëkkati teraanga jooju jox ko sallallahu alayhi wa sallam nudiita bi rafi misla al mufradil alami yàlla woo na la ci ngan goo xam ne bi mu la yëkkatee da nga mel ni drapeau bu doon flotté ci kaw waaw féete lépp kaw kay ma tafuzu bi waslin ay mustatirin ba yonent bi àgg ci njobox tollu jot teraanga joo xam ne dara nëbbu ci lépp ko yàlla joxe teraanga ju toll ni julli ci la ko yàlla joxe teraanga ju toll ni jéggalal ko xeetam bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne aju na ci anil uyuni wa sirrin ay muktatimin am na ca teraanga yoo xam ne bët tegewu ca am na ca teraanga yoo xam ne nopp tegewu ca am na ca teraanga yoo xam ne yàlla rek la yonent bi rek kenn du xam waaw fa xusta kulla faqaarin gayra mustarikin wa justa kulla maqaamin gayra musdahimin yow yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam dem nga ba làq mboolem bépp tedd nga bu yàlla doon joxe te xëccoo ko kenn waaw amul dara lu ko yàlla jox ni ko bi ma joxee diw nangam déedéet wax nañu ne sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci ne yàlla sama maam aadama de yaa ko bind ci sa loxo bu tedd man loo ma defal yàlla ne ko ci sama leer laa la bind mu ne yàlla sama maam Ibrahima alayhi salaam yaa ko jàpp comme xarit yàlla ne ko man jàpp naa la comme soppe te soppee gën a foor xarit mu ne yàlla wax nga ak yonent yàlla Moussa mu ne ko daan naa wax ak moom mais ci gannaaw ay xijaab yu bari muy ay paravent yow nag maa ngi wax ak yow sans intermédiaire te loolu mosuma ko defal kenn mu wax yàlla ne ko dama bëggoon nga jox ma teraanga ju ma yóbbul sama xeet bi yàlla jox ko julli juróom mën ne ko dama bëgg nga jéggal sama xeet bi yàlla ne ko jéggal naa leen ku tuub bala ngaa dee at danaa la jéggal mën ne ko bari na mu ko ku ci weer yu ma jéggal la mu ne ko bari na mu ne ko ku tuub ci bés bi ma jéggal la mu ne ko bari na mu ne ko ku tuub laata muy egg ci xar-xarle foofu nag gannaaw mbokk mi comme kenn xamagul fan la fexeel yow di saxoo tuub foo toll ndax yàlla mën la jéggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñaa boobu la ñu àndaaleel mu ne wa jàll miqdaaru ma wullita min rutabin wa adda idraaku ma wullita min niami waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow daal li la yàlla defal màgg na màgg koo xam kenn dootu ko am jege gi nga jege sa borom ak lim la sëfal ci ay martaba ki teraanga kenn dootu ko am teraanga ji mu la joxal kenn dootu ko am ci xéewal wa busra mu ne busra lana maasara al islaami inna lana min al inaayati ruknan gayra munhadimi kon daal mbégte ñeel nañu ñun xeetu lislaam képp ku bokk ci xeetu lislaam rek mu ne yow mbégte ñeel na la parce que am nga wéeruwaay boo xam ne wóor na leen du daanu waaw du daanu mukk min al ci ci wéeruwaay ruknan ponk boo xam ne gayra munhadimi du mab mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu may loolu mu ne busra lana ñal ñel nañu maasaral islaam yi ñun kuréelu lislaam inna lana na ngeen yëg ni ñun daal am nan minal inaayati ci jagle rukk nan ponk boo xam ne xëyra mun hadimi du du du màbb mukk du dëng du màbb du surux yonent bi daal mooy wéeruwaay boo xam ne ku ci wéeru yow mën ngaa am sécurité ci sa bopp ne li nga wéeru du daanu moo tax mu ne lamma daa allahu daa naa li taatihi keroog bi yàlla woote wooteem ba ne toppal leen ma sama ndaw li bi akrami rusuli ci nga doone ki gën a tedd ci yonant yi waaye ñun am nañ ci sens mooy kunna akramat umami ci lañ gën a tedd ci xeet yépp ndax sa mbaax gi mooy ñu yóbbaale géew kon loolu mbokk yi moo doon suñu juróom-ñaareelu bunt ci burdatul madih ñu doon leen ko defal ci dakar midi point net ak wasaare ci baaxu suñu kilifa suñu soppe suñu sot suñu sëriñ Cheikh Alxasan Seen ak sunu soppe bopp Seydina Ousmane ak euh, bokkam yu baax yi nga xam ne ñi ngi koy jàppale ñi nekk ci xarala gi yal na yàlla defal leen jàmm te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu